Euh, man maa ngi tudd Ahmed Tidiane Ly euh, professeur laa woon professeur de philosophie euh, te ci wàllu politique nekkoon naa porte parole parti bi ñuy ooyee PARENA parti pour la renaissance africaine li nga xam ne soxna suñuy ooyee Mariam Wane Ly moo ko jiite. sëñ Abdul Ahad Gaynde Fatma suma élève la woon jàngal naa ko bi mu nekkee terminal ma nekk professeur de philosophie ci jamono boobu laa ko ràññee ràññee ko ci yaru ràññee ko ci bëgg jàng euh, ci temps boobu laa découvrir que ne Euh, nekk na nit boo xam ne euh, am na leadership nit ku mot mot kilifa la déjà temps boobu rek euh, man njortoon naa ne kii su ko yàlla mayee dund dana dem fu sori ndax qualité leader yëpp amoon na ko wane woon na ko déjà bi mu nekkee élève loolu daal laalu mu doon wax ci moom nekkoon xale bu nangu woon jàng xale bu yaru xale bu dégg ndigal xale bu am euh, fayda xam boppam xam li mu doon xam fu mu jóg mbokkum ñëpp dëkk ci biir département bi di intellectuel de au niveau yàlla def mu ba muy jàng jàng al li ñëpp moroomi sëriñam yëpp jàng muy alxuraan ba mu jàngee ba pare mu dem jàngiwaat geneen wet gi ci des ba yàlla def ko muy intellectuel boo xam ne tey jii lii day ay premier pas waaye du fi yam li ko dugal ci politique bi nag bokkut ak xëy na ñeneen ñi leen dugal ci politique ndax moom politique mottali lu ko dara politique lu muy joxe rek moom fekk na macha allah yàlla na ko yàlla lafal cat ci touche du bois fekk na mu am ko kon politique bi moom bu ci duggee c'est pour dimbali département bi ak jàppale département bi ak jàppale ay mbokkam loolu moo ko ci dugal. bëgg xam-xam euh, am xam-xam te ñaar yooyu yëpp moom am na ko euh, bëgg na xam-xam ndax bi muy jàng ku bëggoon jàng la euh, jàng na it fu mu war a jàngee am diplôme yi mu war a am ba pare beneen bi moom mooy. am respect am yar respecté euh, nit doomu adama ñaari qualité yooyu moo xam ne qualité leader la moom am na ko. dafa am sama papa ju baax koo xam ne kii sama bàyyi la Serigne Bara Dolly daf naan politicien politicien wàññiwul dara li mooy politicien léegi nag chien yi dañoo rax ci biir sein yi ba kenn mënatu leen xàmmee loolu moo ñaawal politique mais politique du dara c'est l'art de faire la cité. kenn ku nekk danga war a politique pour jàppale sa gox Cheikh du nag mi ngi def ci sociale bi mi ngi maye ay robine di maye ay ambulance di def loo xam ne lii kenn du ko yëg nag te li muy def du ko wutal seede. alhamdulilah ah, doomu sëriñ Cheikh Gaynde Fatma la ah, papam ñépp xam nañ ko ci social ah, te papam waxtaan na ak moom xam na histoire histoire Sénégal xam na histoire famille am donc man day am ci benn sikki sàkk ne ci wàllu social euh, nit ñi mën nañ am ci moom yaakaar. Cheikh Abdou ku muy dimbali loxo ndeyjooram bi bu lay jox loxo ñoom du ko yëg waaw koo xam ne it kenn ba mu commencé politique bi ba tey jii kenn mu benn responsable wala dara mënoo ne Cheikh Abdou ma wax lii déedéet xam na li ko war maa nga ca. lii nag échelle la boo xam ne nag daf ko war a yéege ba ba ñu ñuy séentu sax mu nekk président de la république. alhamdulilah euh, man yàgg naa ci seenu politique bi euh, gis naa ay nit politique yu bari euh, man mi ci sama bopp it nekkoon naa leader politique ci ay at yu bari moom. bi ma yegee ne daal dugg na ci terrain politique bi euh, ci tuubaa gi suma xel euh, daal na parce que euh, gis naa ne ah, askanu Touba am nañu ci moom koo xam ne mën na faj soxla yi soxla tuubaa yi ci wàllu politique moom mi buñ ko joxee responsabilité yi dana ci taxaw te danañ ko mën faj incha allah dugg ci nit ñi déglu nit ñi xam lan la nit ñi bëgg loo ci mën nga taxaw ci def loo nga digee lu nga xam ne mën nga ko wala boog loo leen dig nga seet ki nga xam ne moom moo la ci euh, euh, mën a dimbali nga waxtaan ci ak moom muy président de te moom ni ma ko gisee Euh, digganteem ak président de la république yaakaar naa ne lu mu ko wax lu mu ko ñaan euh, yaakaar naa ne bu ko président mënee dina ko defal.